auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim barakati cheikhul xadim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen bal xaq te di leen bal ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di tàmbulee ci sunu nuyoo rek li aaya bi wax yaa ayyatuha an-nafs al-mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi jannati loolu lañu ubbee sunu waxtaan jëme ko ci jëmm ji nga xam ne dafay nekkoon démb di doonoon ab jullit doonoon ab morit doonoon talibu sëriñ Saalihu Mbàkke ñu koy wax Cheikh ca Thioune yàlla ñëw ci ab dogalam ca nam ko daan defe ngir kullu nafsin saay xatil mawti ndax yàlla dee la jëkk bind ci dund dee googu mu jëkk a bind nag xalaa kullu xaal jullit bu nekk nanga koy séentu ci sa bopp te xam ne dana ñëw ndax yaakaar naa ku baax du tee dem waaye ku mel ne ne du tee dem ndax bu fekkoon baax dana tee dem yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam du dem waaye bu fekkoon fekkoonte ne bon du tee demit na dafi des ba faw kon ku baax danga dem waaye ku mel ne ne danga dem kom nag dañuy dem te àddina gi waajtaayu nu fi indi te yàlla wax ne bi ma leen fi indi it bind leen ci nit ak jinne digaluma leen lu dul ngeen jaamu ma waaye binduma leen lu dul ngeen jaamu ma kon nanuy xam jaamo gi nan ko war di defe te ca xëy ndax ci ay tool lañ nekk te ay tool moom ku fa neem tëdd yóbbuwu la fa liggéey yi moo la fa yóbbu te boo fa liggéeyul da perte pertaay googi nag moo tax ñu yëkkati sunu kàddu di ci soññee di leen wax ne nañ def suñu bopp ay jaami yàlla te bañ a def suñu bopp ay jaami doomu aadama ndax jaam moom benn la muy jaamut suñ borom te mooy li am ndax moo tax sëriñ Tuubaa tudd Abdullahi Abdullahi nag mooy jaamub yàlla kon nag ñun ñëpp ay jaam lañ ndax ku dul woon ab jaamkat bu ñu la jàppee yàlla it yàgg-yàgg danañ dem ba indi sab xabru ne moo tëdd fii te yàlla moom ñëpp xam nañ ne du doon koy faatu yàllaa fiy des ba faw moonu fi indi moo fi des ba faw mooy dem ba ñëpp jeex mu des fi moom képp mu yàlla kon nag nañ yem ci kaadaru doomu aadama di roy yonent bi di def yëf yi di def li yàlla sant yàlla kudul moom doo moom yàlla kudul yàlla doo moom mahal baqaa i wa xeyrillaahi lillaahi la sëñ Tuubaa wax lu dul yàlla yàlla la moom te koo mën di jiiñ def ko yàlla bis dana ñëw danga xam ne du yàlla ndax dana fi jóge ñiy dëkkee dañ dañ ak a yuuxu ak jaxasoo ak fun koy jëleete ak la manoon ku ñu koy ku ñu koy defati kon kooka xam nga ne du yàlla yàlla mooy yàlla yàlla mooy yàlla doomu aadama bi mooy doomu aadama bi kon nanuy wéetal yàlla ci sunu dund ba bu nu faatoo bu ndajeek moom nu xam ne kat joxoon nañ ko cër bañ ko war a jox ndax tawxiid ab murit da ko war a am rawatina ab jullit te tawxiid mooy wéetal yàlla ci nguuram gi wéetal yàlla ci coobaram gi bañ ko wutal nawle bañ ko wutal moroom lam digle ñu def lam tere ñu bàyyi te lum dogalit mu neex nu loolu mooy màndargay jullit genn faatu nag gu metti ba àgg ci googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amatul ci àddina genn faatu gu metti it ba agsi ci sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mën naa ne dootu amati waaye genn faatu nag gu àggati ci gu sëñ Saalifu Mbàkke it mën naa ne dootu amati te ñoom ñëpp ay mbindeef lañ seeni jëf moo leen teg ca kaw nit ñi di leen màggal nit ñi di leen roy di leen warmaal waaye yàllaay seen buur ndax liñ am lépp ci lislaam lañ ko amee ak i ndigal comme nag ñooñu ñoo fi jóge keneen ku fi jóge it dana metti ndax bakkan moom fu mu dese faw rek mu metti waaye nag lañ ciy def mooy ñu muñ te ñaanal ki dem ndax ki dem jooy jëriñu ko dara rëyal ay wax jëriñu ko dara sos ay waxit jëriñu ko dara la gën mooy ki dem ku xam ci moom lu baax wax ci te yàlla tax te yàlla tax nga waxe ko nam ko daan defe ku xamul ci moom lenn lu baax nga xam ne mënoo koo seere ñaanal ko ñaari argument yooyu dong moo am te jumtukaay yooyu lañu yàlla sant suñu digg ak ki dem kon nag am néew moom mënatut a jariñ kenn dara mënta may kenn dara ndax bu doon may boppam du dem kon nag la ko fi jële loolaa mat a bàyyi xel te kenn rek la muy suñu borom fañ koy denc ak nañ ko yóbbu barab sàngam ak amul njariñ ci ki faatu ki li am njariñ daal mooy ndigal yàlla yi nañ denc néew fay ko ñëpp yi denc suñu ko defee tamit lañu war mooy ñaanal ko ak seereel ko lu baax ndax fi mu ne ku faatu ku nekkee amul jën yitte yow bëggati ci àddina judul ñaan ndax nit mënta rëy rëy rëy rëy ba gën a rëy sëñ Tuubaa nit mënta gën a rëy ba gën a rëy yonent bi nga xam ne ci la ñëpp di làqutu ci la ñëpp di kom comme ñooña nag jóge nañ fi te soxla nañ ñaan ndax yonent bi bu buñ nee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan la te yonent bi nee na ki gën a nay ci jullit yi mooy ki nga xam ne bu déggee sama tur du ci teg sallallahu alayhi wa sallam kon nit mënta àgg ci maqaama bañ na soxlawul ñaan fi mu ne kum mën a doon ak loo mën a doon ak ku la mën a jur ak foo mën a bokk ñaan rek nga yittewoo ndax yërmande yàlla kenn du ko kenn kenn kenn du ko naagu te yërmande yàlla it kenn du ko doyal kon nag wut barab yi ñuy denc nañ ko dugal fi barab ak nañ ko yóbbu barab sàngam ak amul benn importance nañ ko yóbbu fan yóbbu jullit yi rek te saxoo di ñaan ndax loolaa ko mën a jariñ waaye loola moo la mën a jariñ leneen luñ ko defal nag lu dul lii loraange dong moo ciy mën a juddoo waaye nag ci cadre jullit moom leneen luñ ko mën a defal lu dul lii nag na leen wóor ne nag loraange la ñu doon waaye du ko mën a jariñ fa mu nekk dara ndax ki dem moom dem na ba pare te duutu dellusiwaat comme nag bàyyi na fi njaboot gu baax. nan koy defal li ñuy defal jullit yi bu ñëwee ñu teg ko ci loxol kilifa yi ñu fu ñu leen joxañ jëme ñu jëme fa lu ñu leen joxañ jëme yit ñu xam ne ci lislaam lañ ko teg ñu dem yóbbu fa waaye leneen lu ñu def ay jooy du ko delloosi wax ju rëy du ko delloosi ay témoignage du ko delloosi ñaan rek te kenn ku nekk nag delluwaat ci sab liggéey te sax ci ak jub nag xam kan mooy yàlla ñu jox ko ab cër te bàyyi bokkaale te bàyyi it di def loo xamee ne que ni ki lay jàngal wala ki ngay roy defu ko woon loolu daal bu nu ko defee sunu diine dana jag sunu bi dana jag sunu dund dana jag te ëllëg it sunu àllaaxira dana jag loolu daal laay dénk bépp jullit ndax armeel yee boo fa demee barab yu ñu fa mën di xaajale ber ñii fii ber ñee fee ber gi moom ci matadik doomu aadama rek lañ koy def waaye suuf moom ku ci xas dugg la ñuy àtte borom ba kooku kenn mënu koo xam ci àddina yàlla képp moo ko mën a xam kon nag nañ ko def nañ koy dawaajale jullit yóbbu ko ca barab ya denc ko nanuy denc ñëpp ëllëg lan lay jariñ nit ki du doon barab buñ koy denc lay jariñ nit ki mooy ay jëf yu ko yàlla di fay ak ñaan guñ koy ñaanal ak yërmaandem ju mu koy ju muy def ca moom waaye du ci barab buñ koy denc du ci siyaare gu ñuy dem di ko siyaare du ci wax ji ñuy wax ci moom yooyu yépp mënu koo jariñ dara kon nag ab jullit nañuy def yëfi jullit di wax waxi jullit te bàyyi coow lu bari li ndax ki faatu moom soxlaatul coow lam soxla moom fi mu ne lenn rek la duutu alali àddina duutu pouvoir duutu daraja ñaan képp daal la soxla gi yonent bi digle muy bu ne yonent bi mun a sallallahu alayhi ñaan googu nag képp ku ko defal tey jii loolu rek nga ko deseel waaye leneen moom mënatu koo jariñ dara ci àddina te kenn mënut a def lenn nit ba mu dikk ànd ak sunum xel te xam ne du fi gan te xam ne la fi jëlee yónnent bi jële fi Serigne Touba jële fi Cheikh ma Moussa jële fi Cheikh Mamadou Fadal ba doomi sëñ Touba yi jeex ba jële fi sëñ Saliou Mbacke ba barki démb wa Njaay mu jële fi sëñ Baara mi ko fi jëkk wut jële fi ci sët yi jële fi sëriñ Muxtaar jële fi ku nekk te ñooñu amoon ay wàccuwaay yu mag du fi bàyyi kenn kon nag mbir mi nañ xam ne la daan dikk dikkati ne nam daan dikk dikk ne ku matal dem kenn du am sañ-sañ man fee toog waaye lii day wane na nag yàlla yàlla lu dul yàlla du yàlla kon nañuy jox yàlla cëram te jox yàlla cëram nag mooy di ko jaamu di ko jégglu te di ko ñaan loolu képp la ab jullit man loolu képp la ab jullit moo ko war waaye leneen amu fi ndax ku manoon dara doo fa jóge ku mënoon dara it da nga fiy sax ba dàkk waaye loolu moom yàlla muyu ko mbindeef mu yàlla sàkk ndax muyu ko gën ci mbindeef muyu ko sëñ Tuubaa kon ñoo ngi taxaw foofu di leen jox dig daje ci beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.